jongama Jamra jàpp ne dafa xaraam. c'est une forme d'exhibitionnisme qui ne dit pas xeetu njaaloo la yow amagoo boroom kër jóg naan xool leen ni ma mel xool leen sama pooc xool leen sama dënn bi ngor bu ko jébu buñ ko gërëmee nag du pour loolu dañu ko gërëm ci li mu fas fitam def loolu ko ci barma di wax toj buy bi parce que effectivement euh, juristes yi dañu ne l'aveu est la reine des preuves mm-hmm. naka jekk ba mu waxee mm-hmm. ci la jox courage aux autres miss. ñoom it ñu ñoom ñu daal di wax. exposé ñu dund ci mbir alors nag yeneen miss seen expérience seen mauvaise aventure kon nag pour tontu sa question. Hmm. Mamiko son sël tort a été. de son micro. Hmm. ne leen nag ce qui vous ronge le cœur wax leen ko. Hmm. ku nekk wax. kii naan jële sama njàng yàqu na ci. kii naan sama yaay doon na ci waaye sama papa am na ci woon. kër ga presque yëngatu na wala boog tas na. kii ne jële naa ci ëmb bu amul bàyyi. kii ne benn ministre en fonction moo ma biiral alors scandale yooyu. foofu ñu la ñu monté foofu la ñu ma montelee ndëgg sa <laughs> waaye ça s'est retourné contre eux alors kon. <laughs> am na solo mais beneen bi yow loolu loolu mami koo def. Ah. procureur daf ci war a kontaan. parce que dafay may procureur bunt. Ah. maa ngi ci doon waxtaan barke dem rek ak suñu avocat maître Moussa Sarr que je salue au passage parce que mu ngi suivre attentivement ce dossier. Hmm. daf ko waroon euh, ne ah ñu ngi lay gërëm may nga ma bunt. ma euh, am ay interlocuteur mën a pousser sama enquête ak yooyu pour euh, l'ouverture d'une enquête de police ou de gendarmerie wala bokk pour ma jox ndigal euh, juge d'instruction mu topp dossier boobu pour parce que la mu waxee woon jëfee na ko mm-hmm. parce que tey lundi le treize audition yi commencé na d'accord xam nga waa CODAS mooy hmm? collectif pour la défense des droits de Adji Sarr non non ñoom nee nañu hmm. sa posture ci dossier Miss bi da leen a bett hmm. parce que bi Adji Sarr génnee di wax ne dañ ko violé. Hmm. kenn déggul Jamra di ko défendre. waaw ñoom dañuy parce que ndax dafa am ñaari sénégalais wala ñaari. sénégal ndax ñoom ci jigéen ñi dafa am ñu bokkul ay. voilà yu mel noonu CODAS collectif pour la défense des droits Adji Sarr. ñu bàyyi di jaxase. les hmm. torchons et les serviettes. dafa am différence. c'est deux dossiers totalement différents. ah bon Jamra n'a pas porté plainte pour viol. que ce soit clair. Hmm. parce que viol ka ko wax moom. ak ka muy tuumaal ak yàlla. ñoom nee na ñoom mosuñ la dégg nga ngeen tudd mbirum Adji Sarr mosoo leen am benn posture ni naan nañu jéem en tout cas ubbi benn information judiciaire procureur na autosaisir yi mel noonu. mais bii ñu jug rek ngeen génn ci. non a fait mieux que ça. ci dossier Adji ko. dossier Adji Sarr mooy jóg nañu créer benn collectif. waaw loo collectif des médiateurs religieux pour la préservation de la paix civile. Mhm. Euh, sa confrère bi nekk Walfadjri imam euh, Cheikh Tidiane Diop ci la bokk mhm. euh, ki ràññeeku ci le combat contre les coupures d'électricité imam Youssouf Sarr ci la bokk mhm. euh, et ba ñu génnee ci benn plateau télé loolu loolu violence bi ba mu tàmbalee ngeen initié lu mel noonu quand même non boobu y avait pas de mort y avait rien boobu dañuy yëg ne rek uh-huh. le dossier Adji Sarr Sonko a été politisé ñu ne ah c'est dangereux parce que ça peut loin kon nañ leen jóg loolu waraloon ñu jóg. Hmm. alors bi ñu gisee ne Abbé mooy suñu doyen ñun ñëpp. parce que quand même quelqu'un qui est né cent 1934 ça fait 88 ans ñu jiital ko mu nekk coordonnateur ñu ne nag on va aller voir Adji Sarr et Sonko. dem ngeen gis Adji Sarr. voilà alors ñu ne nag par où commencer on en a ñu ne nañu commencer si ki ñu tuumaal comme que dañu yor tànku jàmm. nga <laughs> dem seeti Sonko. il nous a reçu le 26 février 2021 bi. Hmm. de 16h à 17 donc pendant une heure trente wax na li ne ci xolam wax na sa version wax na tout ba ñu paree ba ma génnee tey confrère ñëw tàllal micro waaw lan ngeen wax ak moom ñu ne ah, attention bugguñu ñu ne ñu da ngeen jéng parce que Sonko n'a pas plus de droits que Adji Sarr. Adji mm-hmm. Sarr a des droits. Mm-hmm. Adji Sarr tamit n'a pas plus de droits que Sonko kon ni ñu déglu Sonko may leen ñu ñun itam ñu dem may nopp Adji Sarr elle a le droit à l'expression. Mm-hmm. comme ça buñ ca jógee. après nous on pourra apprécier la situation waaye naka la ko avocat am dégg rek def woote ma conférence de presse Martin Gueye noppalikul lii mënoo ko médiation <laughs> ndax bu fekkee ku def sa toj-toj sa dossier nekk ci justice ñuy def médiation bu yeboo juge yeeg procureur yi ñu envoyé leen au chômage wax a wax a wax man ma dem ci sa benn confrère bu nekk 2S lancé na Cissé ma tontu ko amicalement ne ko El moo mon ami parce que en fait euh, suñu xarit la. Eh, yàgg a depuis jamono Latif. ma ni ko dama bëgg nga dalal sa xel ñun ñëwuñu fii pour t'arracher le pain de la bouche en tant qu'avocat. ñëwuñu pour nangu sa salaire avocat. ñëwuñu pour jouer le rôle de du juge ou de nous improviser magistrat naan n'en avons par la compétence ay ndongol daara yu ñàkk solo lañu. ak benn labbe bu bokk ci ñun mm-hmm. lii ñuy dox tradition la waruloo xañ Adji Sarr ses droits à l'expression parce que le fait que nga def barrage ne duñ ko gis yéen a ngi accrédité la thèse que mbir mi complot la te yéen ngi xañ a Adji Sarr son droit parce que Sonko n'a pas plus de droit qu'Adji xam nga lii waa ko defuñu ko ñu ne ko kon lii ñuy dox loolu rek lañ ci jublu ñu yemale ñaar ñi ku ne wax pour te rassurer nag ma ne ko jéemuñu entraver l'évolution judiciaire du dossier pas du tout Mmh. au contraire ñun nous sommes pour que dossier bi continuer jëm ba ca yoon ba ca cappaandaw la ñu mhm. xam kii a fait quoi mmh. et je lui ai donné l'analogie de ce qui se passait ici dans ce pays depuis toujours mhm. ma ne ko dëkk bi depuis que le Sénégal est Sénégal nii la ma sa chaque fois bu amee benn benn benn benn benn crise politico-judiciaire pendant que justice sa ngi def liggéeyam encore une fois j'insiste là-dessus mm-hmm. pendant que justice a ngi def liggéeyam toujours en parallèle day am de bon volontés yu jóg dox euh, sol seen dàll mm-hmm. pour éviter les dommages collatéraux au niveau social mais quand même musuñu leen dégg ngeen naan way euh, man personnellement waa CODAS dañ koy waxtaanee que bu dee euh, justice dafa war a jug ci dossier bi leeral ndax viol am na walla amul mais jotu ñoo eggal suñu processus pour def point de presse parce que on maître El Hadj xam nga ñu la empêché. Mhm. ñun def nañu lii ci Sonko. lii la a def def naa ci trois. Euh, waaye léegi. waaw li ñuy dox. Mhm. pour rassurer l' avocat de Adji Sarr. Euh, par mën nañ ko comparer avec ce qui dans ce pays fois mhm. def liggéeyam. waaye am na ñu nekk à côté pour limiter les dégâts. waaye loolu am na solo ma ne ma ne ko nag bi ci gën a fës. c' le présumé coup d' de 1962. Mm-hmm. du boobu Mamadou Dia pour une histoire euh, trop longue à relater ici. Mm-hmm. dafa jóg bëgg a empêcher le vote de la motion de censure à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. léegi Senghor qui avait sous ses ordres l'armée. ba Dia qui sous ses ordres la gendarmerie et la police. joxe ordre ne nañu évacuer Assemblée nationale. Senghor yore armée bi ne non il faut arrêter Mamadou Dia. parce que li mu def coup d'état la. c'est une entrave au fonctionnement normal de nos institutions ñu jàpp ko tëj ko xam nga yoon dañuy def liggéeyam waaw waaye terewul donte le yoon a ngi def liggéeyam mm-hmm. euh, maam Thierno Seydou Nourou daal sol dàllam sëñ Fallou Mbacké sol dàllam di dox ci suuf maam sañ Abdou Jàmba sol dàllam mm-hmm. ñuy def navette entre les hauts gradés de l'armée bu ñu fa jógee nuitamment ñu dem seeti des officiers supérieurs de la gendarmerie di jaabante nawet di mocc di mocc parce que tout était possible Senghor avait l'armée sous ses ordres kon l'armée faroon na du côté de Senghor qui mm-hmm. était son patron mm-hmm. gendarmerie du côté de Dia qui était leur patron alors lu ne mënoon am waaye kilifa yooyu taxaw taxawaay bii ñu taxaw tey di moc di mocc di mocc ba mu sedd benn bal tàkkul waaw te terewul est-ce que tere na justice bi euh, def liggéey mm-hmm. na liggéey ba kii nga xam ne ñoom jàpp nañu ne moom ñu condamné ko alors de la même manière mais est que Jamra est d'accord que dañoo war a dem ci procès pour ñu xam. moo tax maa ngi ndax am na wala amul. maa ngi répété fii. Hmm. que Jamra su ma nee sax du ma nee sax euh, réclame mais dama ne Jamra exige. Hmm. que la plus grande clarté. Hmm. soit apportée à ce nébuleux dossier. vraiment et euh, il a pas mille manières pour cela. que dalee am dossier bi nañu ko ubbi na justice woote na justice. Euh, entendre. waaw leer na nga porter plainte. waaw leer na léegi loolu la. na parce que xam naa ne waa CODAS yi la ñu bëggoon dégg. du point de vue de Jamra bu ñu jaxase. <laughs> Ah, ñaari affaire parce que bële. Eh non Mama Tar Gueye kenn dégg ko woon ci Adji Sarr. on waaw li si Jamra dox te leer na précision bi nga def nii lu am solo la. musoo leen porter plainte pour. voilà yu mel noonu porter plainte pour apologie du viol. voilà pour voilà sa apologie du viol c'est-à-dire violation de l' article 252 du mhm. code pénal bi nga mhm. xam ne présidente comité Miss Sénégal mhm. nga xam ne yow xale yi ñi ci yàqu yëpp seen jàng yàqu ñi jële ci ëmb yu amul bàyyi mais dans le dossier Adji Sarr musuñu fa dëgg kanam apologie amul loxoom wax parce que moom nëgër ni waroon na fekk mu di rassuré moralement euh, la neex hmm. loolu c'est une violation loolu la hmm. hmm. porte plainte or que je sache Sonko mais quand même ci dossier Adji Sarr daan nañ dëgg ñuy naan xale bu jigéen bu doon taxawaalu la woon ci mbedd mi xale bu jigéen. da doon taxawaalu da doon jaay boppam ñu jàpp ko oh, ainsi de suite yi mel noonu. ñu profité ci loolu c'est pas l'apologie du viol ça. c'est différent. différent c'est différent d'accord. voilà euh, bref donc. pour mhm. sa question Jamra exige que le mhm. dossier Sonko Adji soit clarifié et traité. dans les bonnes règles de la démocratie judiciaire. Okay. en justice pour que ñu xam ki a fait. c'est n'a pas fait quoi. c'est clair moo tax nit ki balaa nga kaa waxal. déglu ko ba pare nga xam lan mooy position am. Euh, nekk nañ ci réew moo xam ne tamit ñoo ngi dem ci ay élections locales porteur de voix nga xam nañ ne ku wax Mame Matar Gueye mosuñu la gis ci hélicoptère mosuñu la gis ci ci V8 mosuñu la gis ci katkat yi garaaw euh, te tànku jàmm ngay dox ci réew mi ñoo ngi dem ci ay élections. Euh, réew mi ñëpp xam nañ ne élection souvent ci réew mi dafay daal di tiitalaate parce que mën na jur ay musiba ay violence yoo xam ne dafay jéggi dayoo euh, terme yi parce que wax ñaaw mooy àndi xeex est-ce que tey yéen yi ngeen di artu lu mel nii loolu. waa de ce point de vue là man ñun dañu tàmm di wax naan que lii suuxa jàmm ci réew. Hmm. su quand il y a des acteurs de premier plan yu demee ni ay acteurs politiques. li koy liy suuxat jàmm mooy le bon exemple doit toujours venir d'en haut. et je cite peut-être euh, un ou deux cas d'un pays assez puissant que nous imitons toujours France euh, lors des du soulèvement populaire de des événements de 1968. Mm grève estudiantine syndicale dëkk comme tout léegi male. ba influencé suñu réew. d'ailleurs sax cette crise a influencé beaucoup d'anciennes colonies comme mm -hmm. Sénégal. Mm -hmm. mais le général de Gaulle il s'apprêtait à faire une grande tournée nest pas euh, euh, pour participer à un sommet mondial euh, bu waroon waxtaane euh, la guerre du Vietnam la avait un mm. calendrier diplomatique très chargé. waaye bañ ko ne dëkk ba tàkk na rek. il bàyyi tout annulé mu ñëw toog ah di recevoir syndicalistes yi. di mm-hmm. recevoir parents d'élèves yi. alors di mocc di moc ba finalement ba ñu ci crise bi sur la plateforme ay revendications très saillantes am nañ ci saafara bi ci gënoon a fës. moo di le projet de régionalisation. Mhm. parce que opposition bi d'accordul woon ci ni ko état bi tëralee. waaye mhm. trouvé nañ un juste milieu. ñaareel ba mu di le projet de réforme du Sénat alors cinquante ans plus tard fekk Emmanuel Macron jël pouvoir il y a eu le soulèvement populaire. de les gilets verts les gilets jaunes. Mhm. les gilets jaunes tamit c'était parti d'un problème d'augmentation du prix de l'essence. Emmanuel Macron aussi avait un calendrier diplomatique très chargé. mu bàyyi ko moo doon. que dañu nekk ci ay négociations ñoom entre pays les vingt sept membres euh, européens. Hmm. di waajal le projet de constitution européenne. waaye bañ ko ne dëkk ba tàkk na il a mis euh, il a gelé. son son calendrier toog ci dëkk bi. Hmm. di recevoir syndicalistes yi di recevoir mais surtout il a eu une idée pertinente daal di mettre en œuvre euh, euh le RIC le référendum d'initiative citoyenne. consistant à aller à l'encontre des populations léeg-léeg day def communiqué daal ne bon suba maa ngi chambre de commerce bu Marseille kon maa ngi ñaan opérateur économique ñu fekk ma alors bu ñëwee mu jël micro sol chemise relever les bras relax wax sa vision sur mhm. l'économie sa vision sur euh, la monnaie unique bu pare jox micro ñooñu ñooñu porté ko la contradiction mhm. ëllëg ñu ne mu nga Lyon il va rencontrer les étudiants leader étudiants yi ñëw mu wax sa vision sur l'éducation sa vision sur la réforme de l'enseignement supérieur suñu paree jox ñooñu micro ñu porté ko la contradiction bref pendant près de neuf mois ci loolu la nekkoon ci loolu la nekkoon mhm. dëkk bi di calmer di calmer ba finalement <laughs> ba yàlla andi coronavirus <laughs> entre autres mu daal di jur euh, des avancées ah. mu di euh, les impôts mu di que euh, affaire essence bi mu jël ay mesures quoi waaye fii Sénégal il y a eu populaire de mars mhm. avec pour prétexte Sonko Adji Sarr et tout le monde sait que euh, soulèvement bi amoon ñi doon génn ci mbedd mi di taal Auchan yi. souvent c'est des jeunes faalewuñu Sonko faalewuñu Adji Sarr waaye Sonko Adji Sarr n'ont constitué qu'un déclic. Mm-hmm. qu'une étincelle. Mm-hmm. qui a fait exploser. Mm-hmm. une poudrière de frustration de mécontentement c'était bref euh, euh, euh des émeutes de la faim. Mm. donc. yow nga jóg yëkkati kàddu dem jam ñaajo am leneen loo fa doon inauguré lii nga am une une posture d'apaisement et de rassemblement comme exemple kilifa yi ma joxe léegi les de responsables français waaye nga naan li fi xewoon marché dootu fi xewaat loolu du defar ñu defee ne jeex na il y a deux semaines. mu répété ko France mu daal di demaat France. ne li fi amoon am non non non da doon rencontrer les leaders de son parti non non ça un chef d'état bu yeboo mu nekk par ailleurs délégué de quartier imam ou leader de parti sa posture prépondérante mooy compter c'est le chef de l'état c'est comme ni ko Ndiaye Mansour mbay di waxee c'est le gardien de la constitution mmh. c'est la clé de voûte des institutions c'est le chef suprême des armées mmh, c'est le président du conseil supérieur de la magistrature mm. c'est le gardien des arts le protecteur des arts et des lettres kon buy wax fii rawatina bitim réew kooku la ñuy déglu waaye hmm. dégluwuñu le patron de la l'APR alors nga dem foofu naan man kenn du ma xoxatal loolu lu defar <laughs> moo tax nag pour répondre cette question uh-huh. quand il y a des velléités de, de violence mm-hmm. ndax violence physique day commencer toujours par violence verbale mm-hmm. nous répétons que le bon exemple doit venir d'en haut alors léegi nag Macky Sall euh, tàmbali woon na ko bu rafet mooy bi corona bi ñëwee. Hmm. nous on avait fait un communiqué pour le féliciter ndax dafa ubbi buntu recevoir ñoom Sonko recevoir euh, je sais pas moi ay ay. turam bokk de recevoir leader yëpp. Hmm, hmm. parce que boobu débloqué woon na six cent milliards jël quatre cent milliards yu mu jógee jëlee ci euh, partenaires financiers muy mille milliards. y la nécessité de soutenir les plus faibles. qui auront des difficultés. avec le confinement de supporter aide familiale yi mu woo leen mm. Mm. taataan seen xalaat loolu mm. rafet la parce que le dialogue politique ne doit pas seulement être de mise bu fekkee dañu am en perspective des élections loolu du dialogue politique lambi golo la ku nekkaa ngi seet sa morom foo koy mën a jekkoo daan ko dialogue politique élection ou pas dafa war a am tout temps déjà doit ouvert di woo ses opposants di wax ñoom régulièrement ne veut pas dire que ak kilifa yi mel ni yéen parce que seen xelal quand même soxla na ko. alors kon nag. Mm. pour tontu sa question. Mm. Euh, loolu moo waroon doon sa posture. moo war a joxe exemple parce que bu mu fàtte ne il est le président de tous les Sénégalais. Ah dafa war am une posture d' mm. une posture de rassemblement. alors moo tax je suis pas étonné bi euh, le cadre unitaire de l'islam euh, que je salue au passage ndax Jamra encore une fois membre fondateur la ci. ba ñu koy sos fii. à la maison de la de la presse. yaa nga fa woon Jamra ngi toogoon. Mm-hmm. Euh, di gërëm ki ci bopp bi di. Euh, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al mm-hmm. rafet na. ak ñi seq ak moom liggéey bi mel ni le docteur euh, Cheikh Guèye. Mm-hmm. alors kon laaj nga que lu tax ñoom ba ñu demee ci Sonko mu décliner que du signer. Mm, vraiment mm. le pacte de la non violence. waaye loolu du fi gulet. warul tax le cadre unitaire découragé euh, un leader politique di gàntal ne du ma ba pare poser ay condition du fi c'est pas du fi gulet à titre d'exemple euh, élection bi bi la première alternance en 2000. Mmh. tout le monde sait que euh, premier tour bi metti woon na. Mmh. moo doon éliminatoire bi waaye bi éliminatoire bi jàllee ñoom Moussa Fagnès toog ñoom Djibo Leyti Ka toog les Mariam Wane Ly Mademba Sock les Iba Der ñu ne Ablaye Wade moo fël donc c'est le candidat de l'opposition qui va faire face à ñu war a hmm. dëgmal deuxième tour bi alors foofu société civile bi dafa jóg hmm. parce que les esprits commençaient à se chauffer Abdou Latif ci la bokkoon euh, Alioune Tine bon y en a d'autres que dont j'ai oublié le nom alors ñu def la li cadre unitaire de l'islam def tey waaye ñoom dañuy dem seeti le président sortant Abdou Diouf hmm. ne ko ah dañ ñëw seet si la à préventif parce que tëkkunte yi am ak menacante bu wéyee entre sa camp mhm. ak camp wu le chef de l'opposition euh, bi nga xam ne moom mooy sa challenger pour le deuxième tour euh, loolu bu jëmee kaw du baax mhm. li tax ñu seet si la daal on a un pacte mhm. pour que daal yéen ñaar ku ne reconnaître ku nekk nangu ne résultat yi bu génne di ko accepter waa Diouf ne mais man j'aurais été en contradiction avec moi-même Euh, de dire que je ne suis pas d'accord parce que li opposition bi bëggoon te mu nekk leur revendication ultime dañu ne woon naa fi jëlee le ministre de l'intérieur qui qu'il considère comme un ministre de l'intérieur partisan te naa fa teg ku neutre mais jële naa ko fa indi naa la général Lamine Cissé qui est un militaire. ndeysaan te général Lamine Cissé doyloo naa ko. parce que c'est lui le patron du processus électoral. kon y a pas de problème je signe Diouf di signer ñoom ñu jógee fa dem ci Ablaye Wade. moo tax ma ne la du fi gule. Abdoulaye Wade ne du signé Abdoulaye ne leen meeg yéen aussi. foo leen ne woon en 88 quand Diouf volait les élections foo leen ne woon présidentielle 93 quand Diouf avait euh, manigancé avec une production industrielle d'ordonnances xam nga en fait euh, y a ce conflit des ordonnances mm-hmm. ndax comme yow dafa mel ni Cheikh Tidiane Kandé yaa ngi liggéey fii à Dakar alors jour élection yi. ma yóbboon de Casamance nga demoon mission Kolda Casamance. <laughs> nit wooteel euh, wala Kaolack wala feneen. alors sa mission xaw fa yàgg. Mm-hmm. te donc élection yi du la fekk fii te yow fii nga bindoo. Mm-hmm. léegi booy dem patron Sénégal dafa lay defal ordre de mission. Mm-hmm. jël ordre de boobu nag dem ci sa circonscription électorale ñu daal defal ordonnance nga dem tranquillement doxi sa mission jour élection bi bureau doon boo dugg rek. moo ne sa ordre de mission ordonnance ñu may la droit nga voté donte le sa tourné wul ci registre. Mm. alors Abdou Diouf nee na Abdoulaye ne leen Diouf en avait avait profité. de cette faiblesse du système électoral là def une production d'ordonnance à quantité industrielle moo tax da nga daan dégg résultat yi qui faisait sourire dañu daan wax naan surtout élection 88 ak 93 communauté rurale de Koumpentoum nombre d'inscrits 300 nombre de votants 450 ont obtenu le parti socialiste 500 voix yooyu nga daan dégg <laughs> Abdoulaye ne leen foo leen ne woon <laughs> waaw gars yi ne ko waaw d'accord mu ne ah man ba ñu mais ordonnance yi dafi jóg dana ils sont retournés ah. il y a eu de va-et-vient de navette ba mujj gi une solution a été trouvée ba affaire ordonnance yi ñu jële ko fi hmm. alors Abdoulaye Wade daal di songook Abdou Diouf daan ko jële bu set wicc hmm. mais alternance am mais Abdoulaye Wade waxuloon ne du ma kii dafa ne dafa posé condition waaye maa ngi ñëw si hmm. Sonko alors Abdoulaye Wade gagné gagné bu rafet Diouf tamit am sportivité ak grandeur bu dey nii. comme que moo waroon présider le sommet de la francophonie du Caire. Uh-huh. en fin euh, février de de l'an 2000. Ablaye ne ko nag je suis par la formation de mon nouveau gouvernement léegi est-il représenter ma fa Diouf ne amul benn problème. mu dem représenter Ablaye Wade le président nouvellement élu abal ko l'avion de commandement Diouf président qui vient d'être démocratiquement. battu battu. Mm-hmm. yore mm -hmm. lettre de mission Ablaye Wade dem doxal ko. service à, euh, au sommet la francophonie. C'est ça l'élégance républicaine mais ci salle de conférence bi mais il fallait voir ça à, à TV5 chef d'État yëpp dañ jóg defal ko benn standing ovation ndax non seulement sportivité bi mu am woo Ablaye Wade ne ko yaa gagné waaye ki nga xam ne yaa ko yilifoon ça fait à peine vingt quatre heures yilif la yónni la nga dem di ko doxal loolu dafa rafet c'est des images à préserver alors kon bi continuité de l'islam demee ci Sonko Sonko a eu la même attitude qu'Ablaye Wade. neewul je ne signe pas. waaye rappelé na leen. non nee na dama signé kay loolu waaw waaw mais waxu ko de manière sec. waaw. il a fait un rappel. Ah. mu di euh, bi dëkk bi tàkkee mars. Mhm. xam nga sëñ Mountakha. fàttali leen ni yabal fi émissaire. Mhm. Mhm. émissaire bi ñëw ci waa m 2 ñaan leen njekk xale yi nangul ko ba pare jox ko benn plateforme. ndaw li teg ko ci loxo sëñ Muntaxa mm-hmm. sëñ Muntaxa <laughs> wax ci làmmiñu boppam mais incha allah te moom nitu kàddu lu mu wax dana ko def kaka jot dana ko jot donc le président la République jot na ko mm-hmm. waaw léegi lan la ci def lan la ci matérialiser lan la ci concrétiser posé naa la la question kon nag jaloo il faut muy am concession de part et d'autre mm-hmm. état dafa war a def un pas jëm ci ay même pas sax la war a def ah. vingt pas la waaw parce que moom moo takk cax ku takk cax. waaw itam dañu def un <laughs> vraiment mais tant yaa ngi naan yow signal. waaw te yaay. di menacer souvent amul amul njëriñ. wax dëgg yàlla moo xam ne mm. sumba nañ ko te te mm. te te woowagul. Mm. alors yomb. d'ailleurs loolu rek la li wax loolu moom ça ça c'est vrai parce que borom càkk ak borom baatu neen. mu ngoog et puis tey ñun dañu soxla des acteurs politiques élégants. élégance ci doxin wa élégance ci joxin wa élégance tamit ci waxin wa hmm. donc loolu rek mooy mën a sàmm réew mi waaye mamata hmm. euh, yow da am famille hmm. nga am njaboot am kër di fay peut-être location courant électricité yi mën noonu yëpp mu nekk ci sa ndodd mais yooyu yëpp dañ koy bàyyi fii ngay dem di xeexal Sénégal amul salaire amul dara xanaa jot na yow tamit ñu defaral la koppar boobu noonu ñuy def enquête. Ah. pour nga am oto bu baax. li ci quand même xanaa yow Guy Marius Sagna <laughs> ëpp la njëriñ fii ci réew mi. gisuloo keroog. ah sa naataango ay studio Fall. que je salue léegi ñun yow boo ko bëggul ñun dinañ jël initiative defaral la koppar <laughs> noonu lañ koy woowee express koppar la xaw ma nan la. parce que non sérieux da nga soxla yow yooyu da nga ko soxla parce que yow war nga jot tey. Hmm. jug dem Casamance dem Kolda. en toute sécurité. Hmm. dem dox yi ngay dox nii. parce que problème yi ngay xeexal fii ci Sénégal quand fii ci Ndakaaru ndi am na Kolda am na Fatick am na man nga war war nga mën a dem foofu ci Kédougou ci or ba wax ak acteurs yi pour ñu fexe ñuy préserver l'intérêt en tout cas des des citoyens qui sont là-bas qui font face à l'exploitation mini minière anormale qui est en train de causer beaucoup de problèmes te ils ont besoin des des gens comme vous boo ko yow mënoo ko initier boo ñu mayee ñu ñu initier la ko fii ci Sénégal fii ñoo la koy ñaan rek nga may ñu ñu ñu defaral lu mel noonu <laughs> Mame Matar Gueye tey jot na combat yi ngay xeexal Sénégal eh. parce que yow en en réalité yow mii nag yaa war a jafar ket yaa jar hmm. loolu moom xaw ma ndax xam nga ko wala xamoo ko. gis nga dafa am benn concert. ak <laughs> ci Diop Fall que je salue au passage ma invité woon face to face. <laughs> Uh-huh. defe naa daaw la alors ba émission ba jeexee na mu ne waa Alé Alé Matar nag léegi nag tàggatool nag sa sa sa émission jeex na. waaw xam naa sa chauffeur yi ñu impatienté dégg naa yaa ngi gaare 4x4 bu tooy xepp ci biti ma ne ko 4x4. mu ne ah ma daal di ko ci ful bi en direct fekk maa ngi àndoon nag sama jeune frère El Hadj Mbaye Guèye. Uh-huh. ma ne ko ah, Pape mu ne ma ma ne ko bi ñuy ñëw ci émission bi lan la lan moo ñu indi. mu ne ma taxi ma ne ko ñaata laa la waxoon nga waxale ko mu ne ma taxi bi nee na 3000 yow nga ne dañ ko waxale ba 2500. ay si jow ne ma ah ma ne ko man du ma trafiquer passeport. du ma jaay faux billet. ndeysaan du ma trafiqué drogue. nekkoo ci complotisme ak yooyu nekkuma ci complot nekkuma di wër di saaga ay opposants pour ñuy jaar ci suuf di ma may dara. te amoo benn organisme international bu lay financé loolu leer na. amuñu benn dëkku naar. pour les mauvaises langues ni ko gars yi di waxe naan ay Iran les mauvaises langues qui disent hmm? euh, les salafistes ak les wahhabistes amul benn dëkku naar je le répète ici. un franc di dugg ci loxo Jamra amul benn organisme. léegi loolu man xam naa parce que yàgg nga ñëw Sénégal ñun gis nañu mooy booy ñibbi nu muy demee boo ñu mayee autorisation ñu ubbi la yow tamit par Express ñu defaral la enquête que war nga am oto bu baax bu am sécurité pour nga mën a dox yi ngay dox nii ci jàmm ak salaam parce que waruñu la gis ci passeport commun yi waruñu la gis ci njaganjaay waruñu la gis ci car rapide waruñu la gis ngay buuxante ci ci ci ci ci tata yi wala ci mel noonu boo ñu may autorisation rek bu ñu jeexalee émission bi ñu xool nu ñu koy formaliser wax dëgg yàlla keroog dama dugg benn tata mhm. daal di masque quoi masque kanam bi pour ñu bañ la xam ne ndeysaan waaw masque euh, corona yi waaw ma gis ay den ñaar ñu jigéen ak kenn ku góor ma ngi dégg seen chuchotement de wax kii naan waaye du moom waaye kii naan wax moom la la gis nga bi mu sox jaww <laughs> li bari sama périr ma dindi masque bi ndeysaan waaw mbaa doy ma fàtte si yàlla kii <laughs> ne boo ñu mayee ndigal rek ñun ñun ñu ñaan sénégalais yi parce que bu amee sénégalais bu yelloo ndimbal hmm. pour gën la encourager ci li ngay xeex parce que mënoon nga def nii ñëpp dem tëdd sa kër ne xale yi dugal mm. génnal demal ci boutique bi jàppal sa njaambur noppil sa yoon ko ci mm. waxtu julli jut jot nga ne leen dem leen julli yem ci loolu waaye yemoo ci sa famille boobu noonu da nga jël mm. Sénégal yépp nga boole ko def sa famille def ko njaboot kenn ku nekk nga ko xeexal parce que combat yi ngay mën a ni je ne le dis pas parce que tu es bien habillé je ne le dis pas parce que tu es devant moi je le dis parce que sincèrement tu tu le mérites tu parce que bu ñu amuloon ku mel nii yow ak ñi ngay àndal ak ñi nga bokkal ci kuréel yi nga xam ne yëkkati ngeen ko kon Sénégal boo moytul sax mën na gën a ñaaw nii boo gisee vraiment ngeen may ñu de sëy na ñu ñu dem ko express ñu defaral ko Mame Matar Gueye moom tamit mu am otoom dañ koy bind une voiture pour Mame Matar Gueye on kooku boo ñu ko bañalee ñun dinañ ko def boo ñu ko bañaloolu tamit ñun dinañ la ko def dinañ ko def une voiture pour Mame Matar Gueye ñu wax ko fii ci senego point comme sénégalais ku ko dégg ku ko bëgg nga jàppale ñu ci loolu pour nga am oto bu baax ñaanoo ko nag ñaanoo ko kenn parce que am nga possibilité woo président de la république dina la jël nga ne ko damaa soxla véhicule defoo ko am nga possibilité woo beneen ko am doole fii ci réew mi war la mën a may oto mm. defoo ko yaa ngi kon di dafay firnde la yow li ngay def nii wutoo ci alal wutoo ci wutoo ci dara da nga koy def rek ndax yàlla tax kon ku jug nekkal yàlla fii ci réew mi war nañ la mën a dimbali pour nga am en tout cas sa dignité di mën a dox li ngay def ndax Sénégal rek a tax loolu moom ñoo la ko waxal. waa jërëjëf Cheikh Tidiane waaw mel na ni émission bi egg nañ ci jàppandaw la. waaw egg na ci jàppandaw la kay kon nag maa ngi gërëm di la sant. <laughs> ci sa taxawaay sa générosité de cœur. non mais non sa oh. patriotisme. merci beaucoup. Euh, di delluwaat rek euh, di tëjee fi ñu tijjee woon. Hmm. ñaan suñu borom mu sàmmal ñu réew mi ñaan suñu borom mu aaral ñu njaboot gi ak ndaw yi ak tuut tànk yi. ndax boo gisee euh, comme ONG yu bari am seen R plus un gaare ñaari kat kat mhm. euh, Jamra boo gisee ñun ñu am liberté de ton mhm. lu ñu neex wax waaye ci yar ak teggin mhm. parce que wolof dafa wax ne ku ëmb sa sànqal sa kersa ndax nëgër ni bu doon dañu lekk xaalisu UNESCO liberté de ton bi ñu amoon en décembre maag dàmboot kocc ñu wër média yi rajaxe yëpp yàq complot bu fekkoon dinañu am lu ñuy jot ci UNESCO duñ ko mën. c'est sûr et certain. ak yeneen ak yeneen. pour ne c'est sûr kon nag combat bu difficile la parce que ci es ngay gantal lu bari bari. Hmm. pour am liberté de ton. alors loolu war na ñu naan xanaa Jamra la lu nekk yoonam a ngi ci waaw waaw parce que kenn feesul suñu bët bu état bi defee lu dul yoon jël ay récépissé jox ko góor jigéen ñu dal ci kaw état bi. liberté de ton moo ñu ko may. loolu dëgg la bu fekkee ambassade du ak ambassade du euh, Hollande. Mhm. dañuy def lu dul yoon Jamra dal ci seen kaw. seen internet yi nee nañu li ma wax nii dina ci baax trop nee nañu Mame Matar Gueye soxla na oto <laughs> parce que liggéeyam ci réew mi rafet na nee nañu ñoo ngi xaar initiative bu mel noonu pour ñoom ñu participer ci. waaw loolu moom dañuy ñaan sa diggal rek ñu def ko. waaw waaw d'accord waaw <laughs> <laughs> léegi ñu ngi lay gërëm. merci beaucoup yal nañu yàlla sàmmal réew mi. amiin yaa rabbil aalamiin yàlla dàqal Sénégal. amiin amiin amiin aaral ñu suñuy kilifa diine amiin ñor di seeni fan hmm. te toftal ci wér yal na yàlla def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yegul amiin asalaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup mbokku internet yi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen dig daje ba beneen yoon fii ci ak beneen invité bu mel ni maam Mactar Gueye li amal Sénégal njëriñ <laughs> ba beneen yoon incha allah rabbi jërë ngeen jëf